Beni Karam Tay Sonko Beni Karam Tay Sonko Beni Karam Tay Sonko Beni Karam Tay Sonko dictateur Macky Sall dictateur bu bon la Macky Sall dictateur bu bon président ay bon Thank you. liggéey Macky wutal la ñu liggéey sonaluñu ko mais nag bu ñu bëggee xoxotal encore duñ ko nangu Ousmane Sonko nekkul animal bu ñuy yóbbu séerans bu rendi ko comme ni mu defoon ñeneen yi Khalifa Sall daan na ak Karim Wade boobu jeunesse bi il nekk nous étions pas conscients mais actuellement Macky Sonko a une jeunesse bi il nekk nous étions pas conscients mais actuellement Macky Sonko a une jeunesse consciente Sonko yee nañu liggéey nañu ba ñu xam adduna xam administration xam suñu droit xam suñu devoir loolu tam Macky de lu ko siise Sonko bi jaral ñun lu ko raw jaral nañu ko dëkk bi on est au même pied d'égalité mais gis nañu ne ñu nekkee ci ci suñu milliard procureur lan la def su woote gars yi ngir seesi in jékki-jékki rek mu ne la gisul dara ñoom Mamour Diallo fii Ousmane Sonko tuumal na ko suñu dara xam amul mu na profité ci occasion simple fii comme Adji Sarr Ousmane Sonko yore ñaari geegam bu gis Ousmane Sonko bëgg ko ñuy dem di profité ci bu jigéen bu innocente Adji